Hey. Get up. Get up. Let's go. Hey. Jay. Jay. Jay. Hey. Jay. Yo. My nigga, time to rock. ki sëñ maa di kat bu waañ bi bàyyi maa di ak a raar boo nu ma bëggee xaalis sama rakk bu leewul tamit na ma daal yow bu duggee ajana ajana tàbbi safar si géej munul maa di fa nga laa moo tax ma ne wàcc dégguma dégguma dégguma dégguma tout le monde tout le monde tout le monde yaa ni nga wàcc a ku ñàkk sa ragal a màgg ma raw ma yàgg tekki woo rajo nga tàkk jàkk nga bàkk nga jàkk du tee ngeen ma yéene yéen ñëpp lema ba fëgg seen dën yee ma jërë ngeen jëf booy bu gëmeen tunaan danga may sul si pax bi da ngaa jum si kasi xus si xal di daj ñun duñ kur sëg gën a suux di tanik duuru ci acide te gën cuubu cogg ak buju xar jur fi mandi wër sa lépp si mooy du tax nga jug ma ne wàcc naa pare wàccu kien tukki naa sam passeport fees ñuy kalaaf ma doon gas sombeer la jor bu dekki woon maalo booy jëf mu am xatam gàjjoo tëj dama dal ni dex rambo duñ daw ba dekki ma may seen tey ma nigga temps yi da nga raar bu wàññi mi bàyyi man di ak raar ma bëggee xaalis sama rakk bu lee bu lawul tamit na ma daal yore bu duggee ajana ajana tàbbi safa si géej ma mënul man di fanga boo doo ma ne wàcc naa për dégguma dégguma dégguma dégguma tout le monde da nga fogoon ma jiigal a jiig moo tax nga berse a ni nga ki wala bis ñi la jiitala siin te yow kese gis sa kàmb gis a mu nañ ma miin bàyyi la ngay simba ko xiiru ma pes la fàttali la ku li berse maa la siwal di munul fene bi teesu kaar booloo be ëpp li bëri am si am si meer soo taaj si meer soo bu taaj jënd jënd ñu fenn si nangu weer ni nga lépp la ñu fekk ma si bëri wadd nañ ma xam ne yaa ma jaay naka jekk ma xam ne aw ma tey bu sañoon du saxi fees si sama kaw di dégg xeer yi sama mbagg gem te aji sama dégg ma dégg tay na nga raar gis nañ maa di kat bu wàññi bi bàyyi maa di ak a raar wooy na ma bëggee xaalis sama rakk bu laye bu laye tamit na ma dal yore bu duggee ajana ajana yi tàbbi sa fa si géej ma mënul maa di fa nga bot dégguma dégguma dégguma dul ma dul ma dul nëgë ni wàcc naa pare wàccoog yéen Daguma, Daguma. Tulma, Tulma. Daguma, Daguma. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vrai que nous 4 ans à 3, ans d'absence. Nous avons C'est grâce à vous. Si nous avons eu un produire nous avons projet, nous avons des vidéos, nous avons des concerts. C'est grâce à vous parce que vous il streamé, a des gens de projet, il y a un tag. Je vous merci à tout le monde.